xam nga ñun loolu suñu problème parce que pour l'instant président Macky Sall bi mu mujjee di joxe ay directives yu ñu liggéey ci biir parti bi directives yi mu joxoon mu ngi ci li gën mooy dem leen seeti jiwaat responsable politique yi dans seen localité fekk leen fa waxtaan ak ñoom gën dellu ci base bi gën leen a jegeel mu santoon yi nag bu ñuy liggéey bu mu doon liggéey yoo xam ne populisme lay doon ay meeting wala ay caravane lépp lu ñuy liggéey nañ ko liggéey interne bu dee bilan social ñu néew doole te am jafe-jafe ko jàppale ku feebar ku am problème ku ko jàppale ni ñu liggéey woon en 2009 ba accéder au pouvoir nañ kon 2008 ba accéder au pouvoir nañ continuer di liggéey noonu soo ñëwee nag ci diggante Amadou Ba ak président Macky Sall Amadou Ba lépp loo xam ne am na ko ci wàllu administration moo ko liggéeyal boppam il a fait 30 30 ans de l' administration géré nekk un homme boo xam ne liggéeyal na Sénégal loo xam ne Sénégal yëpp reconnaître nañ ko mm-hmm. mais Amadou lépp lu mu am ci politique président Macky Sall moo ko defal mm-hmm. bu dee échelon politique rek président Macky Sall mi njiitul APR moom moo ko defal échelon. comme li Abdoulaye Wade defal Macky Sall comme li Abdoulaye Wade defal Macky Sall d' accord nañu loolu mais président comme Amadou Ba dañu toogoon ci coalition de parti politique def congrès tànn ko comme candidat. Mhm. ñu dem ci élection présidentielle ñu perte élection yooyu ñun ñu continuer di tirer suñu bilan di xool fan lañu jëm kon jawul yàkkamti benn bi ko nit ñi di pousse naan ko Amadou Ba génnal génnal même bu fekkee am na manquement yu amoon ci biir coalition bi bi ñuy dem ci élection kon tey jii bu fekkee ñëwaat nañ. président Macky Sall bi muy dem dafa bëggoon a bàyyi mais ñun ñoo ko posé ne ko président ñun pareeguñ ak yow ci wàllu politique. gis ngeen boo leen xoolee. Hmm. le premier avril ci guddi gis neen mu gind benn texte génnee ko wane ne moom moo continuer di jiite parti bi ak coalition mhm. parce que booba ñun bi muy dem nañ wax ak moom wax ju mujj. bi ñu demee wax ak moom wax ju mujj mu accepté li ñu lu mu doon def ba pare jox ñu ay directives yoo xam ne dañ koy liggéey dafa am nag ay échéances yu gudd yu ne ci suñu kanam. mais est-ce que vous trouvez logique. Hmm. Amadou Euh, mu mu ñëw deuxième. Mm-hmm. arrivé deuxième. Mm-hmm. mu ñëw war a opposé wu pour jot réew mi ngeen ngeen ngeen bëgg ko delloowaat euh, jiital euh, Macky Sall est-ce que aussi loolu c'est pas une raison pour lui mu demal. mu génn bàyyi leen ak seen Amadou Ba génnewuñ ko pour mu bañ a nekk suñu candidat. non mais bu ngeen ne bu ngeen ne Macky Sall na ñëw jiite leen c'est que. Amadou Ba doyul parti politique la. tey Bassirou Diomaye Faye mu ngi nekk président de la République te Sonko mooy chef ça veut dire que da ngay dégg Amadou Ba dafa nekkoon benn nit si ñun. président Macky Sall def ñaari mandat ji dem tànn ko comme candidat. bu ñu ñëwaatee ñun amuñu problème 2029 mooy élection présidentielle jubluwuñu ci élection présidentielle. ñun dañuy préparer échéance. élection sauf que 2029 c'est maintenant. élection législative la ñuy préparer ak bu fekkee dañoo anti dañuy dissoudre assemblée ak élection maire. ñun dafa am ay localité yu ñu contrôler am nombre de députés ñu am assemblée nationale te bëgg a maintenir majorité assemblée nationale. ñoom ñoo nekk ci combat wu combat wu. Mhm. Euh, dem élection en 2000 Amadou Ba bu dee mooy chef opposition parti alliance pour ak benn bokk yaakaar ñoo tànn Amadou Ba comme candidat dañ am ci 552 communes du Sénégal ay coordonnateur communal Amadou Ba moomu leen. dañuy am ay coordonnateur régional Amadou Ba moomu leen am ay coordonnateur départemental Amadou Ba moomu leen ñu tànn ko ci suñu biir coalition de parti politique yóbbu ko ñun ba tey déggoo kenn ci waa APR wala benn bokk yaakaar ne dàq na Amadou Ba ci biir parti bi ñu nit jàpp ñu ne génn na xam nga fa la ñu ne génn bu Amadou Ba jox ñu ko ne génn na parti politique bi day kere ji parti politique boppam boo boobaa tamit jël kàddu gu ñaaw jëmale ko ci moom duñ dem moom moo am lu mu ko sàtte ñun ñëpp am nañ lu ko sàtte parce que APR ñun ñoo xañ suñu bopp pouvoir suite dañu unité woon bu jaar yoon dëgg dëgg ci biir élection yi dem ci élection appareil affaire bi yëpp ànd liggéeyandoo ensemble. mooy saboté bi ngeen ko saboté rek. mais sabotage bi commencé wul foofu ñu ngi commencé ci élection maire. amoon ay banquement ba perte bay contrôler léegi 470 mairies dem ci élection député am ay problème jëm ko réglé waat jóge ci 125 députés ñëw ba 83 députés suñu biir coalition de parti politique moo amoon ay problème interne. ba coûté ñu ñu perte pouvoir loolu nag ay nit yu nekkoon ci biir parti bi di xeex seen intérêt personnel boobu seen fa bëri na parce que ñoom dañu defe ne dañuy nekk ministre à vie gis nga politique dafa am génération de futur buy dem ci biir parti politique. Ah, mënoo nekk ci biir parti politique non kenn mësul dégg fu mu waxee ñaaw ci biir coalition benn bokk yaakaar wala APR wala ci l'opposition du Sénégal ñun amuñu problème ak Amadou Ba dañu ne nañu àndandoo booloo jubóoli suñuy responsable politique yi nekk en bas ba pare problème bi du problème Amadou Ba ak président Macky Sall déedéet. problème bi à l'intérieur de notre coalition dañu bëgg def cohésion sociale ci biir parti bi. ba nit ñëpp juboo nekk benn. dafa am ay loolu est-ce que loolu gëw ma ni mën na nekk parce que unanimité moom kenn mënu koo am.